عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق kii sama waajur ba yàlla def mu tawat jugee fi dem màcc bu ndaataa boobu samp fa kër samp fa daara di fa jàngale gannaaw gi ci mbokkam yëpp joxal nañ ko sama doom mel ni na ama activité daf lay amul place waaye rawatina nag ak circonstance yi ñi nga xam ne ñu ma demee may def rek ci gàttal lool mooy bés bi ñun waa Jabétu Ansaaru-Diin xalifa bi ci rek lañu war a gërëm lu tax ñu war ko gërëm mooy ñun bàyyi mooy suñu lépp mooy suñu yaakaar yëf yi xaw a yàgg ndaw si xam naa di ko bindaat di ko fàttali ne man Baye xam ko buggee waaye bu ngeen gisee ma ci di wax nit ñi pour ñu bokk ci dama bañ kenn Cheikh Mahi ñu ngi leen di seetlu le département Nioro amul morom kenn tolloogut ak ñoom ci liggéey bi ñoom rek ñoo am dëkk boo xam ne ñu koy wax Touba képp ku fay taalibe Baay rek am nga carte membre Ansaaru Diin Touba rek ñoo ko am loolu nag ñu ngi koy seede te ñu ngi bëgg ñëpp topp topp leen ci euh, ñu ngi gërëm presse bi yëpp bëgguñoo tudd parce que ni ko waxee guddi na ñu ngi gërëm mairie Taïba ñoo xam ne mënuñ leen ñàkk tudd sëriñ bi Cheikh Abdourahmane Sarak gàmmu tey ba def ci dugal loxoom SC Ndiaye Diagne et frère ñoom tamit ku ne miin na leen ci gàmmu ba ak gàmmu Madina loolu mënuñu woon leen a ñàkk a waaye nag mention spéciale pour médecins yi ak yi tamit euh, service euh, yi yore wàllu sécurité bi muy police ak gendarmerie mais surtout gendarmerie. ndax na nga nelaw soo ko respecté wu santoo yàlla kon daal loolu ci gàttal pour bañ a guddal comme ni ngi noddu sëriñ bi moom dañu amoon ci kàddu di ñaan yàlla fekkee ko déwén di ñaan yàlla sëriñ bi yàgg fi ak mboolem njaboot bi asalaamaaleykum wa rahmatulah gouverneur de Abdourahmane Niass ak Serigne Mouhamadou Mouhamina Niass mi yor daayira Ansaaru Diin fekk fii Chérif Cheikh Oumar ñu nuyu léegi ñu ak moom léegi. te bëgg na juróomi at yii di ñëw mu gën ko yokk ndaxte soxla sénégalais yi moo xam ci li ci mbay ci ndox ci courant ci yoon ak ci yeneen ak yeneen bëgg na gën ci yokk pas gën ci yokk liggéeyu gouvernement bi ba mbégte gën a am ci dëkk bi jàmm gën a am ci dëkk bi mi ngi tamit di sàkku ñaan ci yéen di leen xamal ne li jiitu ci réew mi te doon mébétam mooy Sénégal doon dëkku jàmm ndaxte gis ngeen dëkk yu ñu wër yëpp yàlla def na waa Kër Baye Niass defe naa ne fu ne lañ leen fekk ci Afrique de l'Ouest ak yeneen dëkk loolu di cër bu yàlla defal Maulana Cheikh Ibrahim Niass Afrique de l'Ouest ak lu ko weesu jàmm ji am Sénégal ak kaaraange bi nga xam ne moo am Sénégal mu gën a yokk nee na mi ngi leen di sàkku ci yéen it ngeen ñaanal ko ci nas yu bees yi nga xam ne moom la nas mu jëm ci wàllu industrialisation jëm ci wàllu reforestation maanaam gàncax yi ci àll bi li nga xamante ne mooy programme yi nga xam ne moom la nas ngir gën a jàppale néew di doole yi ne ci àll bi ñi ne ci réew dëkku taax yi ak ñi nga xamante ne mooy programme yi mu teg mooy ci wàllu logement ci wàllu setal réew mi ak yeneen ak yeneen man nag sama bopp maa ngi sant yàlla bu baax a baax ci bi ma yebalee fii fekk si leen ci dëkk bu tedd bi fàttaliku li ñuy am doon kàddu yi nga xam ne président nee nañu jotale ko di la santaat bu baax di la ñaanal wér-gu-yaram gudd fan di ñaan njaboot gi yëpp ngeen ñaanal ko ci nas bi ak liggéey yi nga xam ne moom la ko Sénégalais yi dénk asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu ñëpp tim ci turi sëriñ bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass di sant yàlla ci dellu seem ci mbooloo mi ci barab bi sant yàlla tim ci barab bi ñu nekk muy Taïba Niassène di yàlla tim lu tax ñi daje Taïba Niassène bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne jantal diine la boo xam ne leeram àgg na fu nekk ci àddina jubal fu nekk ci àddina fii la juddoo muy Taïba Niassène muy barab ci bu ñu war a jublu ngir ñaan yim ñaan yàlla yàlla jëriñ képp ku ko jublu ci barab bi bi manzilin mubarakin ci famille bii nga bokk te loolu lu taarix dëggal la te nga koy dund ñun ci ñi xam ñu ngi lay nuyu di fay président de la république bi nga xam ne daf koo jaarale ci yow nga ànd ak délégation bu am solo bi nga xam ne yaa ngi ànd ak ñoom gouverneur di Kaolack bokk ci nga xam ne léegi Cheikh Mouhamed bi muy gërëm taxawaay yi gërëm na taxawaayam ci waajtaayu gàmmu gii nii waaye mu nuyu tamit suñu nijaay Cheikh Mouhamed al Qurashi nga ne kenn du ko nuyu fii ndax barabam ngeen ñëw waaye nag ndombal tànk gi ndax koo may bu toogee fi ñaari tànk moo tax loolu ngeen ko tuddee ñu ngi koy nuyu ci ndomba di nuyu euh, Mouhamed Ndiaye Rahma comme ni ko Cheikh Mouhamed laa di nuyu préfet di nuyu maire de Taïba di nuyu ndax xol yi yëpp boo fi xar bàyyi rek nga ci fekk te moom moo jëmmal loolu ci ñun moo tax ku ko taxaw boo yëgee ak boo yëgut ñi nga xam ak ñi nga xamut ñoom jàpp nañ ne ñoom nga ko defal ca olof yi dañuy wax ne ku rafet njort doo man gan nit laay wax ndax am taxawaay bi nga taxaw junneen ne ngéej pour jiitu jiitu ci def ko bu la ku ko def am yàlla te ay président yi di Sénégal waaye jullit nga bu bëgg yàlla boo xam ne Sénégal yëpp yaa ngi di xool benn bët yaa ngi jéem ci loo man pour emele jëmale réew mi kanam ma dañ lay santale yàlla ci yàlla dimbale la nga taxaw ci mbir yi Ibrahima Niass nga xam ne képp ku toog fii nii rek jàpp na ne ak képp kuy dégg ba foo xam ne sax du biir Sénégal dana la euh, rafetlu sa taxawaay boobu ñaanal la ci yàlla mais ñaanal la yàlla ci ci jubluwaay yi nga xam ne yaa ngi ko jublu yëpp nekk kuy war nga cee ñaan yàlla ndox sa soxlaay bopp la ndax luy baaxal Sénégal sénégalais yu baax yëpp ñoo ko moom waaye nag bu fekkee ne dafa nekk ci loxol koo xam ne nii buñ ko ñaanalee yàlla baaxalee ci kanamam dañu ñaan yàlla Sénégal yépp baax waaye ñu ñaan yàlla yàlla baaxalee sa loxo ci lépp loo xam ne rek ñu ngi koy tawat mu jëm ci askan wi comme ni ko la monsieur le ministre waxee plan yi nga xam ne yaa ngi ko am ci wér gu ci jàmm ci yoon yi ñu ngi ñaan yooyu yëpp sottal ko ñu ngi ñaan sax yàlla sëriñ bi jaar fi di ñëw tay yàlla boole ko ci yoon yooyu nga xam ne yow am nga naal pour defar ko te euh, amuloo ci xaaj rek seen waxtu wu nekk am na loo xam ne dafay taxaw soxla mooy laaj ne lii dañ koo soxla léegi waaye génn say soxla ndax lu soxlaal sëriñ bi waxtu wuñ ko accéléré ci sa nopp yaa ngi ciy bàyyi sa xel kon dana rafet bu sëriñ bi toogee njaboot gi yëpp toog ay rakkam mu ngi nii toog imam Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi toog Cheikh Cheikh Omar mu ngi toog njabooti Cheikh Sëriñ Bay mu ngi toog njabooti Cheikh ñëpp ñu ngi toog nga xam ne ñoom ñëpp njaboot gi lañ ñoo xam ne ñu ngi nëbbatu ci biir nit ñi te ñoo xam ne nii ñu yàlla nangu seen ñaan la dañuy taamu wax ne sëriñ bi kontaan na ci sa taxawaay pour ñu ñaanal la yàlla yàlla dimbale la ci nga li nga nekk ndax bu la ci dimbalee yàlla daf ñuy dimbale ci suñu Sénégal gii nga xam ne dafay nekk Sénégal boo xam ne bu am jàmm la Sénégal buy dox jëmee ak njaboot bi ca kanam kanam kon président jërëjëf ci touriste demee ci barab ku mu fa fekk bul génn ku mu fa fekkul Seydi Mahi Ibrahima Niass nga xam ne taxawaay boobu la taxaw gërëm Cheikh Mouhamadul Amin ni mu gërëmee ñooñu seen mbooleem mi rakk mu gërëm Cheikh al imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé mi xam ne moom it bépp taxawaay bu sëriñ bi war taxaw lu ci dégg rek du wax ne sëriñ bi nekk fi waaye nga taxaw def sa bopp soldat bi nga xam ne nii jàpp nga ne yëf yi man kenn maa ko a def gërëm na mboolem yëngatu yi nga xam ne tim ah, dëgg-dëgg ci gannaawam ndaw yi ñu ci nekk ñu ngi jéem ci seen kem eh, kàttan ku ci nekk rek li nga jàpp ne mën naa dimbali xadra bi ku nekk mu ngi ci góor góor lu waaye mu ngi ñaanal ñëpp mu ngi ñaanal ñun ñëpp yàlla teg ñu ci li nga xam ne nii moo dëppoo dëppoo bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yàlla tàggal ñu ñun ñëpp ci li nga xam ne nii xidmatu Cheikh radiallahu anhu ci la nekk moom tim ñu koy ñaanal yox taalibe yëpp ñu dellu di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi may ko wér dëgëral ko ba nga xam ne sémbu yi nga xam ne nii bàyyi sémboon na ko mu war ko mottali ak sémbu yi nga xam ne moom ci boppam dana ko sémbu yàlla mat matal ko ci teewaayam ci suñ teewaay def ci li nga xam ne nii daañu ci amee ngërëmaande yàlla monsieur le ministre ñu ngi lay gërëmaat beneen yoon ñu lay wax nga dellu ak jàmm ñu lay wax nga dellu euh, nuyu président di ko wax ne ko sëriñ bi dëgg-dëgg euh, fàttewul ko mu ngi koy teewlu ci zahir ak ci baatin ak jaamu yàlla bu baax bu yaakaar ñaanam rek bu xamee déggee loolu sëriñ bi dénk na ko Sénégal waaye dàq ko ci mbooleem monde islamique bi waaye dàq ko ci àddina wër nañ këpp ndax ñun liñ sëriñ li ñuy jàngal mooy xool jëm ci àddina yépp ba tëgéer maane